moo ma fi jiite. maas. ka baal. soxla wu la fi ne xam nga du faju ndax man mi yor ma xaalis yow xam nga lay sa problème da nga nangu la déglu te doo dégg dana maa jox deux cent mille francs Mass yow Mass projet 200 000 rek. yow yow yow projet boobu du yaaka moom. maa ko moom yaaka moom. sama projet yëpp si yow moom sama projet yëpp yow. dama ne la. ASC Magdane. waaw ak ASC xàll yooyu. ñooy daje. xam du yoon. ñooy daje. ñoom it dañuy xam du yoon. waaw ñoom ñoo war a daje. te dañuy football. laaj ay sacrifice yu rëy. bi ñu waxtaanee ak man mën a leen ah dinaa jàpp ci match bi comme yéen yéen a ñëw si man. ndax match bi li mu laaj la match bi dafa métti. pression ba ñoo bëgg a jël coupe ren. loolu la match bi laaj. match bi dafa laaj sacrifice te sacrifice bi ay bagages la. dama la soxla. Pawra lañ soxla pour gagner match bi. waaye man sa yooyu nag maa sa loolu problème waaye. ma su 200000 nga teg nag awra. doo ñëw ma rey sama xam xar ma ci ginnaaw. dëgg la dëgg la xamalaal bu ma fonto ëppoo may xar ëppoo may xar. budon awray mala rek xam nga ne kon duma yex ci ci yow. bu may la xana ma ne ma ne du awray mala awra nit lañ ma wax. lan ne match bi. mas mas parce awru nit ñu wax dama fi kat mas projet bobu lu ko projet. projet mas xam nga ne yow lu ne dugaloon ma ci waye projet bi ñu du projet. projet la fi kan la dem mu jox mu jox ñu ay awra fi kan lañ fi dem mu jox ñu awra projet la xalaatal rek xalaatal projet la projet la 200000 day jaxal 200000 lu ñaari fam fi fi fi ku nit ko nangoo joxe xana xana xana ci mar bay ngeen bàyyi leen. heure bu ñu waxee rek ngeen naan awra ji nekk ci ci ci ñi ñuy làqu bàyyi leen ñi làqu gis nañ ñi làqu comme suturaal nañ seen bopp ba dem ñu nit nañuy suturaal suñu bopp lu waaye am di sacrifice ak yóbbu ko ci nit ñi nga xam ne làqu nañ xalaat ne duñu dee yow bëgg nga boo dee ñu dagg sa cër. ah, ah? nit ki buy dund day def yëfu nit kuy dund. arabe arabe Moussa xam nga lan laa bëgg a xamal sacrifice bi taxaw na 200000 yi taxaw na. waaye nag maa ngi leen lenn rek laa gis yow mii laa soxla nga joxe say awra ñu dem gagné match bi nga jotaat say awra jot sa 200000. ay waay waay waay euh, yow say bagage. ay waay waay. la tax a jóg yow mas. 200000 lu 2 jours la de. mas pardon. dégg damay jël sa ay eh, mas yi am na yoon café moo may ubbi ah. waaye 200000. non man jëloon si yi joxe ko xam nga na man doon 1 million. mas tamit dama ko tere ndax 1 milliard xalaatuma ko. dama jug dana merde bul wax maas ah ya, eh, waay maas mas, mas lagi neexul aku bener mais maas yow yo yo ci man de yo yo yo doo comprendre maas nga ba jël sama tay la yow doo doo comprendre yow doo comprendre dara yow lii match bi dañ koy démarrer football ko bine fit fit fit tas enggak jatuh sa yor bu dee bëggoo bu dee bëggoo mën naa ko jox Baye Ndiaye bëggoo mën naa kaa jox Baye Ndiaye moom mu jël ko nga jox ko kok. la mau ba ya, ya. sama bos li nañ sama bot de ndax man aw cëfër cëfër moo tax soxla ni sama bés. Ah. yow mi am cëfër cëfër. waaw waaw bagaas. Ah, waaw naan la kon dina doon Moussa néewi bagaas suba la match bi. arbitre bi ba tas na nga jotaat say bagaas lekk say 200000 eh, da ci lu gaaw. waaw da nga may nax 45 mille 45 mille 45 mille da nga may nax da nga may nax da nga may nax da nga may nax rek da nga may nax. waaw waaw man dinaa la tegal projet yoo xamante ne ni mu yombee bari xaalis. nga demaan dee ah xanaa soñoo ah, ko kay. ah 100000 la ngi nii sama poche. ah du ma la 100000. maa fa yowee na xam nga du ma la 100000 xanaa bu doon 150 mille mën naa ko laal. loolu ba tey mën naa wax ak ñoom ñu dolli ci 50 mille. xanaa loolu xanaa loolu mooy bëgg a. waaye maa c'est sûr que certain ne su ma si jeexee tax at bi suuf la rek. dinaa jot sama bagage at bi siffle jour yi duñu génn terrain

ma jaaxal mooy imbécile bi da nga koy wax doo ko mën a jot man li ma yéem man. papa yaaya ah papa sa championnat Chine championnat Japon yaa doon seetaan Chine ak Japon seen championnat yaa doon seetaan tànk ba yéeg papa kon match yi neex wóor na yaaya foofu joueurs yi gaaw joueurs yi dañuy daw fiw fiw fiw ak bi di sax ay jakaytaa yooyu ñooy jakaytaa yi ñooy kii dawal. foofu yow yaa doon seetaan sànq. yow ay affaire fu ay moom laa mën a dégg ci kër gi. bis ni tey moom mu duggut sama kër gi ndax lu ma lu ma ñàkkul ne la ma ko xañ te problème ma nekkee loolu la li ma bëgg rek mooy problème mu mat si na na na na dàkk. moom papa yow jooy kii boobu papa sëñ sëñ boobu ay waxoon naa ko de waxoon naa ko nee naa kooku ay ah ba pare sa entraîneur bi xamul dara système bi il faut 4 4 di troisième APC yooyu mooy yaay waa ji tey eh, waaye sama papa ndeysaan xamoon naa seen équipe dañ ko dóor yéen seen équipe seen sëyin bi seen sëyin bi yéen tayaa yi eh, seen sëyin bi ay ba bay seen attaquant boobu seen attaquant boobu noonu waaye xam technique de jeu bi la papa quatre quatre deux ñu si bëri ah, doomu am yow xam nga ne yow yow yow maas xolam waaw kay waaw kay papa maa ngi koy yàqu. ah dëgg la xoolal naka yàqu blanche ma ko ah. li ma bëgg nag mooy nga jël samay bagage joxaat ma ko bu jeexoon nga ma wax benn fan nag naa la abal marché bi jeexal delloo ma samay bagage te boobu ba léegi maa ngi xaar samay bagage ah jotagoo ma ko marché samay bagage indi ko lu nekk nekk nag lu nekk nag jaar na fi fu ne nag dugal nga ma fa ci lu ne dugal nga ma ci ci doo xeexu doo xam doo xaw doo noo xam lu noonu lu ne dugal ma ci waaye nag na a leer leer yàlla ne bii di nuntak yooyu ndax samay bagage ma ko lii ma mën a bu ma gën a sa baay. da nga ma mënul dimbali ah match bi dañ koo reporté. xam yaa situation bi situation bi lu léegi ba nga jox samay bagages. ana 150 mille yi. papa yaa ngi ana 150 mille yi. xam nga ne ma 150 mille. ana 150 mille yi lekkoo 150 mille. lekkoo 150 mille. waay lekkoo ci ginnaaw na nga jox samay bagages ah. dama ne la déglu ma fii <laughs> déglu ma fii du noonu lay ñëwaatee. tey da ka yàlla dulu nggak? Nyanal ñëwaatee papa aw suk suk ya ini bagaimana ah, kamu a revisi tangkar raportnya ini masih footballul ba ah masana ya mo mas mané dañuy football ak match bi masana yaa moom nga doo jot ñaanal ñu gagné peur bo togaté da nga ñaan ñu gagné match bi dañ ko football ci nii wala ñu football ke ci ndële ngay doo jot xam ko yéte bu xam yi poté yéte eh damay ubbi de lan eh, eh, nga apa? eh wa sax yaa kat koy ubbi suñu dóoree ya. yo ma apa? nga ma xor keneen ah bama lay bama lay bama lay jox affaire yi sa yeese bi nga xam yi apa? su match bi jeexat tak ma jotal say bagage yi poté apa? mais football ko ñu ko football ko ñu match bi yow apa? lo bëgg da nga bëgg football da ngaa bëgg a football. Mass ma ne ndax da ngaa bëgg a football. da nga Mass xoolal Mass. da ngaa bëgg a football. eh Pape boo tey ay match bi match bi daal. Eh, yow bu ñu doon footballaguñu ko suba wala ginnaaw suba suñu jàppee date football match bi. suñu gagné ay waay. suñu jàppee date laa dégg. xam nga lu ma la bëgg a xam gënoo maa tàng gënoo maa réew. yaa ngi wax ma lay bàyyi gënoo maa tàng gënoo maa réew. xaalis bi bi mu ñëwee daw koo lekk ak sa njaboot ba ma. xaalis ak 10 000 francs nga ma ci jox foofu la la a gën a te football guñ ko di nga xaar ba ñu football ko ñu doog a delloo say bagage. fa teel xam nga ni xam nga da ngay duul de. bés bu ñu gañee nga jot bu ñu gañewul dootoo amati dara. waaw maa xam xam nga ne kàcc nga de. damay kàcc damay kàcc. yow xam nga dafa baax maa ko jox. yow de. yow ngay ñaan ñu gañe de bu ñu gañewul doo fanaan. Inta Mbaye Inta Mbaye sa papa nga dee yow bagage am ngay ngënd ngëndee papa say saak yi dee yooyu. yow say bàyyi ñàkk fooyam nga Bapak, sesak ide, sesak. Apa? Sesak ide, sesak coba ya ide ya. Eh, Sampai gue minat. ki mas bi maa nga war na mas dinaa rey ndeyam loolu ma neex. mas doomu aan. kene baan mas def kene baan. ba mas yow jox sa tànk fa yàgg nga nag nga yow ya. sama doom na fa yàgg parce que ko fii dañu fa wol ñoom ma ne ma si neex daal. mooy daal dama ko suivre rek ma defar kese la. mu ne ma naa tey la samay bagage. seen bagage. tey samay bagage maanaam sama kanam naa ko ay. sa kanam mu ngi nii de waxuma kanam bi sama sama kii bi. sama sama àndakoon naa ci laa ko tey la. sa sa aw ya. waaw waaw sama sama sama kii bi laa ko. kenn sa tooyoo fekk papa ma dafa yóbbu say aw ya. parce que yàgg na yàgg papa ma nga xam ne maa ngi parce que yàgg na yàgg nga xam ne maa ngi tali. boobu nag sa problème mooy is sama sama bagage dina ñëwaat waaye sama problème. waaw deux semaines yeeg yow nee na deux semaines léegi naa mu ne deux semaines. waaye mer du yow dama bëgg dem lijjanti lu ko naan loo nekkee sama taal ko lu may lijjanti. yaay yaay yaay kaay yóbbu leen sama bagage. Eh! yéen yéen koy expliqué. lan la yow. yaay jàmm maa mujj. sama papa tay machine nay tan moo am mu tay tay ay eh, eh, bagage eh, la ay sa papa ñeme naa jël ci kër gi benn bagage di ko joxe tane tutu bi tay ah, tutu bi tutu bi man tutu ay ka ngebe me wala tay yi sa papa du sa morom dégg nga li ma la wax sa kër ba ya tu ya papa yaay bi yaay ak ma ñak sa ndek sa baay tutu bi tay mu me tay ah, ah, wara ban la ma taxul wax xam nga kii kaar bi ko fi ba ndi yaay xam laa bëgg ba ma ma dëgg kii bi wax dëggaram du dëgg maanaam man nga xam laa bëgg xam man léegi li seen problème mooy man lan la tamal jëriñ cib jëw ndi yaay xanaa xumbal mooy xumbal waaye lan la xorom jëriñ cib cin safal ba mu saf saaf addina moto sax soo ko defoon dootul saf lan la ci mbori jëriñ cib cin xanaa neexal oh. i dina yewet dootul saf ndi yaay est-ce que wax ji mën na leer dama bëgg nga wax ma wax ju leer laa la sama sa république bee dem man saa dem bi sama tama ji xumbal kër li wax na lu leer wala ma ñaax seen xabaar eh dama bëgg nga wax sa papa lan lay. waaye wala samay koo lañ tey la. jeex na jeex na jeex na yow yi jënd affaire koo yooyu. Ndijaay Ndijaay ña nga fay da bañ tey la la Ndijaay. ay ndax Idada Ndijaay tey la la samedi. lépp ma laa la may ma jàmm dimbali ma tey la samedi. Ndijaay tey samedi bii nga xam ne lu ma bëggoon ñu def ba mu baax ma soxla sama bopp. ba mu ah. nga tey la say bagaas. tey da kay nax yaa la laa bëgg yam. waaw boo jug dem wool ma sa papa maas gis nga tey mooy jàll sama ginnaaw. Eh! waaw. papa maa tey moo fi ma. mooy jàll sama ginnaaw ndax tey damaa soxla sama. papa maa ngi investir maa ngi investir sama. maa ngi si biir yow lay xaar. waaw maa ngi investir maa ngi investir.